may yëkkati heure bi jëlee ko 17 heures dem ci kanam ak may ñu dimanche bi ñu waxandoo ko ñun ñëpp ci benn baat ñu ànd préfet dégluñu daal dina dina def maye dix 18 heures bi léegi li ci des dina ñaan kilifa yi pour ñu yóbbu ko 19 heures fii ak deuxième vague fii ak euh, le 20 passé dimanche bi nag mu ne jagleel ne ko maire yi na maire yi waxtaan ak seen délégué ak service d'hygiène suñu balee seen marché ba pare mooy condition bi suñu balee seen marché ba pare benn dimanche yeneen dimanche yi may nañ ko maire mu mu may ko commerçant yi li ma préfet may ci dimanche wax naa leen ko bale nañ tey yeneen dimanche yi nañ jàpp ne commerçant marché Zing ak ci sunu barke délégation bi ñu àndoon ba ñaanal marché Zing préfet nee du ñu may te njaboote yeneen marché yi du xaar sax ñooñu di ñëw di ko ñaan ci ñaan bi ñu ko ñaan marché Thiaroye marché ñetti mbaar marché pënd marché bu bees marché bi ci Pikine yëpp ba Kër Massar mayaale na leen li mu may marché Zing donc ñu ciy sant yàlla di ci tiitaru nag parce que nous avons été une commune pilote une commune dynamique yóbbu nañ ko ba 18 heures dimanche yi léegi mun nañ ko jaay yóbbu nañ ko ba 18 heures àndandoo bi ñu àndandoo defe ko man loolu laay sant man mun naa wax en tant que maire Pikine Nord Sénégal maa fi génn commerçant ay commerçant yu an yu di patriote jël seen xaalis cotiser table par table cantine par cantine jënd seeni i balek boros yu bees tàq yii mairie bi jënd ko barki Seydina Mohamed donc aw ma seen fay ñoom ils sont engagés et patriotes xam nañ ne place yi ñoo fay xëy seen bureau la sa bureau bu salte tilim ba microbe dugg fa balaa muy rey maire yow lay rey am nañ conscience boobu ba jël seen xaalis def ci ma leen gërëm leen sant rawatina ñuy fay seen taxe di ko jox mairie bi bàyyiwaat loolu jëlaat seen xaalis bale te matériel yii maa ngi leen koy ñaan suñu paree xam naa ne ma lañ koy mayaat bu population bi soxlaa ma jox leen donc Sénégal fi gën commerçant Sénégal maa fi gën marché donc di sant alhamdulilah rabil alamin depuis boobu ba léegi première vague bi ak léegi defe naa ci ñaanu ci ndimbalu suñu borom ak ñaanu kilifa diine yi fi nekk zéro cas la Pikine Nord amagum première vague deuxième vague may ñaan nag set bi ñuy set sonn bi ñuy sonn ñaq bi ñuy ñaq ñëpp bàyyi ci seddaay bi bàyyi seen liggéey ñëw kilifa yi jog xale yi jog góor ñeeg jigéen ñi yàlla xool ci loolu ba ñu continuer am zéro cas deuxième vague bii defaguma ko ah ndax dama lompañ ñoo ngi doog a voté budget koppar yi duggagul donc mënaguñ ko def te code des marchés publics dafa wax ne dangay def lu ñuy wax plan de passation des marchés wax yan weer ngay lancer say marché donc premier weer ñoo ngi ci deuxième bi ci mars mairie yu bëri ci Sénégal ak ci àdduna sax laay wax ni budget di doxee da ngay dem ci sa premier trimestre nga lancer say marché pour que fournisseurs yi ñëw compétir légalement nga def ko ci internet def ko ci journaux yi gars yi compétir donc munuma ñëw rek jox ko yaa ma neex ku ma neex ne ko livré ma loolu lay xaar mais premier vague bi def naa ci ci poosu mairie bi lu tolloog 68 millions sama poche bopp dépassé naa 2 millions 800 di xëcc rek jënd ku jaay carton masque carton eau de javel mouchoir may jënd rek di noonu di jàppale daara yi di jàppale groupement yi boole ceeg commerçant yi dama daan fay ay xale di leen jël pour ñuy pour ñuy taxaw ci buntu marché bi fan fanweeri xale ñeent ci buntu bi di raxas nit ñi di leen takkal ay di leen contrôler di leen fay 80 mille par weer ba ma demee ba mënatu ko damaa toog bii it mënuma ko maa ngi toog mais li ma mën mooy nekk seen avocat bu ñu amee lu ñuy jooy di ko jàmbat ba mu toq sama nopp malgré que dafa fekk ma tawat ma àndandoog ñoom parce que rocceeku ma dem ma woote téléphone di ko jàmbat préfet ne ma dikkal te ba ma sonal nga ma ñëwal yàgg say commerçant ma ñëw toog ñu àndandoo ko kilifa yu màgg yi ak yeneen délégué yi ñu toog ñu may ñu ko moo tax may wax ne àndandoo bi ñu ànd bu ci seytaane dugg seynaate seytaane bu ci naree dugg nañu wut xiir comme yu aamaay caw ko mu génn Pikine Nord bàyyi ñoo suñu ànd suñu booloo maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam